nga xamante ni jéego gu doy waar moom moo fi am ci am ku nu faat ci anam yoo xamante ni ba tey mënaguñ ci am lu leer. Euh, fii ci euh, euh, VDN 3 bi nga xamante ni am na waaju fi faatu ci anam yoo xamante ni xëy na dinañ ci dikkaat bu nu amee ay éclairage waaye pour le moment police scientifique bi mu mooy doog a yegg si noonu pour essayer d'établir des détails concernant. maanaam tey jii ni euh, faatu bi nga xamante ni waa ji euh, faatu na fi euh, li fi am kéemaan la condition yi mu deewee lan moo xew amaguñ ci ay information ne serait-ce que fi mu ne nii ñu ngi sur les lieux en attendant peut-être après nu am des éclairages concernant sur la mort de la personne bi nga xamante ni moom lañ fi annoncé quoi. bi ñii def la ñuy def ban ko faatee ba noppi ci lañ ko dugaloon. voilà donc euh, ngeen am ko noonu en image fii lañ ko dugaloon ñi def la ñuy def ban ko defee ba noppi oto bi kii xamu ci dara kii xamu ci dara day ki seetaan si rek. son frère deful man famille am la waaye papa ak sama yaay bokk bay. titre de témoignage. ok donc euh, c'est des membres de la famille. Euh, dans la consternation vraiment ils sont désolés de la situation ndax li fi xew métti na leen euh, mënaguñu wax. ah quatre trois jours ci tey wala quatre jours maa ngi fi romb oto bi trois jours ci tey man maa dëkk ni ci ginnaaw. waaw ah, man koy romb fi mu taxaw mais pour man oto bi dafa paan wala. xibaar par rapport ak situation. no non non non franchement man sax lañ ko wax man léegi lañ ma informé ne ma oto bi. taxaw fi doon gis oto yi ñetti fan yii xamoo woon li xew. fii laay jour barke alxuraanul karim fii wàcc chaque jour maa ngi koy romb mu taxaw mais jaaxalul la yow. non franchement li ah mais grand lii kay comme jaaxalul amul. grand li lii lii lii. est seen zone yi dafay ay scène d'agression wala yu mel nii. daana fi am mais presque depuis commissariat bi installé wu ba léegi. franchement macha allah. presque ay affaire de sàcc yi nga daan dégg sax déggatoo ko fi depuis commissariat bi ñëw ba léegi vraiment sécurité am na fi mais xam nga lii moom xam nga koo ko def da lay wóor ni la bon lu mu préparé la parce que nit mënoo ko fekk ci otoom rey ko ci biir otoom kon am na lu xew.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 nooy def am na yoo xamante ne mën naa ñàkk vraiment sëñ mi ngeen baal ma message boo bëgg wax autorité autorité muñ gën ñoo dimbali ci sécurité gën ñoo dimbali rek ci sécurité dong la ñuy ñaan autorité yi amuñu leneen lu ñu leen di ñaan vraiment information bi ñu mën a am mooy bi ñëpp am rek mooy que bon am na ku ñu boom xamuñ ndax nañ ko boomee ak kañ lañ ko boom bu ñu bàyyi ci biir oto parce que ñun dañuy ñëw fekk euh, maanaam nit ñi dajaloo fii man bi ma laajtee ne leen lan moo fi xew ñu ma dafa am kuy rey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 mais waa Cambérène rey ñu ko parce que dañ ko indi Cambérène mais nag dimanche parce que ñun fii lañ dëkk ñu ngi dëkk fii nii si ginnaaw suñu gàlle ngi nii mais parce que oto bi depuis dimanche ba léegi mooy fi mais di gën a waxaat comme li ma wax sànq rek Sénégal dañoo war a changer ni ñuy doxalee changé parce que yàgg na fi affaire de rey rey nii ñaari at ñett wala. boo am ngeen fi gisee oto bi jéem leen ko jege jéem a xam lan la. waaw parce que jéem ñu ko wax parce que am na oto yu bëri yoo xamante si nii dañ fiy gaare ñu jàpp ne oto bu pan la dafa gaare nii rek ñun loolu lañ ko foogoon parce que oto bi depuis dimanche bi ñu ko gisee ba léegi ñun loolu lañ jàppoon quoi. mais xëy na ay mbokam ñoo si doon ñoo ko doon wër ba yem si xamee oto bi daal di. ngeen kañ ngeen yéeg nii maanaam nit a faatu ci bi. léegi léegi tey tey lañ ko yëg te lañ ko yëg parce que début dimanche la lañ ko gis oto bi mais xamuñ woon ne nit ku faatu ni dafi daan am ci Cambérène fi non non li c'est la première fois ñu ko fi doog gis parce que waa Cambérène ñoom xamuñu ay rey nit affaire yooyu ñun jaamu yàlla lañ xam ak liggéey dóor waat mais nag Sénégal di wax ak président de la République di Sénégal essayé moo yor Sénégal mooy voté loi affaire ak waa assemblée parce que nañ xam ne luñ yàlla suñu borom moo ñu gën a xam suñu bopp moo ñu gën a bëgg moo ëpp yërmande ñëpp kon yàlla bu ñu wàccee fii si àdduna ñu pour ñu jaamu ko du ñu teg loo xamante si nii dañuy lu fitnaal la moom bu indee rey ku rey ñi rey la kon moom xam moo ñu. yéen wóor na leen ni dañ ko rey. dañ ko rey yow ku nit yàlla suñu borom dina rey nit dugal ko ci saako yàlla dina def loolu yàlla du ko def nit a koy def ak moromu nitam. nga am benn message go bëgg jàllale. waa benn message mooy jàllale. mooy lan mu état bi laa ko jàllale mooy ku rey dañ laa war a rey woo presse bi yëpp. waaw tout la presse ñu ñëw ñu ne kii dafa ray nit dañ ko war a àtte rey ko wane lépp ñëpp di si teg seen bët mais ñaaw na trop rey dafa yomb barki démb ki ñu rey fii nii si 500 500 500 téeméer. sa fan la xewe fii nii inde 25. lan moo xewoon. ay affaire de raxas oto yooyu noonu benn waaye jugee fële rek jam ko paaka imagine lu yooyu dafa yomb dafa yomb dañoo war a def loolu ku rey ñi rey la yàllaa ñu gën bëgg sawaay waay yàllaa ñu gën a bëgg suñu bopp nañ def loolu. ah président ñu ngi lay ñaan ngir yàlla appliquer loolu wala koo xamante si nii bu fi Macky saalo jugee yaay toog appliqué loolu ngir yàlla ñun jeunesse bi dañoo sonn ci lii. chaque jour nga dégg ay ray. jaaj dugg ci ñeenti fan oto baa ngi fi nit ña ngi koy romb waaye xamuñu woon li ci nekk euh, ce matin ni ko Abdou Aziz sunu mbokk taskat xibaar boobu leerale sëru waa ji nag te moo newoon ci taxi romb oto bi ñaaw njort ne xaaral mu wàcc bi mu wàccee nag xool mu gis ni frère am la euh, gars yi dañ ko rey dugaloon ko ci saako. yeneen xibaar yiñ ci war a am xëy na ñu ngi ci lu ci mën tam dinañ ci dikkaat en en détail euh, mu nekkoon maanaam deewu ndongo un jeune ci à son état ci information yi ñu am mu mel ni euh, euh, am na daal ay samba boy yu ko song def ko jëf ju ñaaw jo dugal ko ci saaku euh, askan wi nag ñoom ñi jël kàddu ñëpp am nañu leen nakari métlu nañ ko nakarlu nañ ko voilà donc dinañ ci dikkaat incha allahu rabbi dinañ ci dikkaat incha allahu rabbi pour beaucoup plus de détails mbokk yi